le vingt-huit janvier deux mille vingt-quatre dañoo amaloon assemblée générale fii ci euh, chambre de métier bu Dakar doon def li nga xam ne moom mooy élection assemblée générale bi fal nañu président amoon nañu ñetti candidat ci li nga xam ne moom mooy élection yi. ñi ma voté ak ñi ma voté ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di wax ne nag. kenn ku nekk na nga jàpp ne rek yow yaa gagné liggéey la boo xam ne travail collectif lay doon boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ànd. parce que li ñu ñor du dara lu dul avancer suñu secteur bi muy secteur de l' artisanat parce que damay jël sax mbirum téyër secteur u artisanat bi ci boppam lañu bëgg fexe mu avance jëm ca kanam ku ne xam na ne réew kenn mënu ko développer te l' artisanat bokku ci ñuy lancer appel nag ci état du Sénégal ak ku fi yàlla mënti teg na jéem a gëstuwaat artisanat l'artisanat fii mu toll nii bu bu ci état jàppul boo moytuwul ñun tailleur yi day li dal suñu mbokk menuisier yi dinañu dal ndax ñun gis nañ ñu ne importation bi bëri na fi mu toll nii ci wàllu broderie yi da ngay fekk ay tailleur broderie yoo xam ne yu bëri ñu ngi dem nañ chômage lu ko waral mooy importation bi te man li waral importation bi laa xamul lan la parce que lépp lu ñuy jël bitim réew di ko indi fii mën nañ ko def kon damay lancer appel ci état du mu protéger ñu bu fekkee ne bëgg na xeex contre l'immigration clandestine bëgg na xeex contre le chômage. teewaay fii ci assemblée générale ATPS bi nekk na teewaay boo xamante ni bii teewaay bu jaadu la parce que ñi nga xam ne ñooy def assemblée général bi non seulement que ñoo bokk benn corps de métier bu ñu exercer mais aussi dañu bokk ci njabootu artisan gi nga xam ne moo ëmb li ñuy wax cent vingt corps de métier. donc tey bu ñu amee xew-xew li ñu naan geenu golo golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko su ñu ayee tey nekk na devoir ci ñun ñu ñëw assister. xool naka la ñuy liggéeyee ci liggéey bi yoo xam ne tegu ci yoon nekk bu leer nañ su ko defee bu boobaa loolu moom la ñu jël yóbbu suñu kilifa ñun tamit ñi nga xam ne ñoo ñu yónni en l'occurrence le président de l'union nationale des chambres de métiers et le président de la chambre de métiers de Dakar qui sont empêchés léegi waxoon ne naa leen teewal fii tey et eh, bi nga xamante ni ñëw nañu nag gis nañ fi vraiment loo xamante ni lii ànd na ak euh, jàmm ànd na ak salaam gis nañ fi dal gis nañ fi tey gis nañ ñoom ñëpp benn lañu. et que ñu ngi def vote yi dans la plus grande transparence parce que ñëpp teew nañu te kenn ku nekk jog nga voté di ñaan yàlla rek di nga xam ne moom moo jóge ci urne ñu respecté ko ki nga xamante ni ki moom moo gagné xam ne ñi nga xam ne ñoom la jiitee du ñu ay jaamam du ñu dara mais ay kéem lañu parce que ëpp leen xam-xam ki gagné tey ki génn ci résultat bi euh, ëppul xam-xam nit ñi ëpp leen judd ëpp leen xaalis mais ay nawleem lañu di gor comme moom jël ko jiital ko kon dafa nekk seen jaam. président Ismaïla mën ngaa ñëw. kii moom mooy président sortant ñu ngi koy wax Ismaïla Dieng ñu jox ko mu kàddu mu am lu wax ci vote bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ne ni nuyu yéen waa association bi yëpp ñu ngi leen gërëm di leen sant yéen ñëpp. aussi di rafetlu élection yi ni nga xamante ni noonu la déroulé waaw di wax ni àdduna moom nii la rek ay nit moom suñuy wuti dina am kenn ko am waaye dina am ñu ñàkk ñuy rafetlu bu baax di félicité aussi. suñu waa ji nga xamante ni moom mooy ilimaan moom mi nga xamante ni moom la yàlla jox ndam li di wax ni bon na ñëpp rek toppaat ci ginnaawam ñu jàppale ko liggéey incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. comme ni ko président sortant waxee Ismaïla Dieng di grand bu mucc ayib aussi def liggéey bu mucc ayib ba fii association bi toll kii ci topp nii nag di Elimane Sène kenn démérité wul parce que ñun ñëpp ñoo bokkoon li ñuy kenn ku ci nekk njëriñu association bi da nga doon xool. te grand bu jàmbaar la te buñ ko jàppalee ñun ñëpp membre bu nekk ñu am ci lu rafet ab suñu njort ba fii ñu jëmaat yeneen élection dañuy gën a am ndam ñun waa association bi waaye kenn du am leen lu muy rëccu ñu ngi kontaan nag ci ndam li nga xam ne yàlla suñu borom may na ko grand yàlla na la yàlla eh, sant yàlla di julli si yenant bi tedd bi alayhi salaatu wasalaam di sant eh, suñuy ñaari waajur di ñaanal Issa moom mi nga xam ne moo waral lii yëpp suñu taxawaay fii tey waaw parce que bu ñu demee ba ne association des tailleurs professionnels ah ci moom lañ ko jëlee ñu koy ñaanal yàlla yàlla oyofal suuf si kawam yeesal yërmandeem mboolem jullit bu mu fa fekk ak ña ko fa fekk ndax képp ku fa jaar rek wax dëgg yàlla liggéey bi di nga xam liggéey bu baax dinga ko teg si yoon waaw léegi nag ñun ah dañu bëgg daal ku ñu jàppale si suñu association bi en tant que tailleur surtout si euh, wàllu euh, club foire bi waaw ah comi commission de foire bi nekk euh, chambre de métier bëgg nañ ñu jàppale ñu si bu baax comme ça bu ay foire amee ñu mën a xam mën ñu mën di ñu informer bu baax ñu mën cee dugg parce jigéen ñi wax dëgg yàlla bëri nañu fee waaw te nekkuñu ay jigéen yoo xam ne nii tamit dañuy ñëw dugg ci métier bi te xamuñu ci dara tey koo ci dem dafa yore machine am di yore ciseau di taxaw di dagg di expliquer ay tailleuram walla muy dagg di leen jox ndax mooy suñu métier loolu lañ jàng loolu lañ xam man sama patron ki ma jàngal métier mi ngi fii toog Ibrahima Diallo yeneen femmes yi fii ñoom ñëpp même chose waaw bëgg nañ daal vraiment état bi jàppale ñu bu baax a baax a baax en tant que femme ak suñu càmmeñ yu baax mbooloo mi yëpp te di leen ziare di rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne ñi ngi ko sosoon depuis ay weer ci ginnaaw di sant yàlla mi ñu dimbali ba ñu egsi ci bis bi ba defee ko niñ ko bëggee woon ba jëlee ci ay résultats yu am solo muy loo xam ne lu ñuy boole la loo xam ne aussi jàpp nañ ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax di fàttali rek mbooloo mi yëpp ñu xam li waral association bi sosu d'abord ñu bañ koo fàtte te bokk na ci bokkoon fu ñuy liggéeye ñun ñiy teew fii ñëpp bokkoon nañu fu ñuy xëy ñi ci ëpp yàllay dogal ñuy dem ba kenn ku ci nekk li ëpp ci mbooloo mi ku ne am sa yëfu bopp ubbi sa entreprise nekk ce di góorgóorlu jël ci ay ndaw di leen liggéeyloo euh, ci biir loolu aussi yàlla dem ba dajale ñu ñu am xalaatu sos association bi teete ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ci métier bi mu di ay ndaw ak ay femmes yoo xam ne ñi ngi fi euh, te euh, tubaab day wax l'union fait la force booloo moom mooy doole ginnaaw bi ñu xamee loolu ñu am ay autorités aussi yu état délégué lenn ci lu jëm ci secteur de l'artisanat te munuñu artisan bu nekk fa nga toog ñu fekk la fa wax ak yow bi ñu amee xalaat boobu ci la ñu bëgg a booloo kon am benn kàddu boo xam ne ci la ñuy waxe ak état état ci lay waxe ak ñun loolu moo tax ñu sos association bi wutal ko président ñu bëgg nag mbooloo mi yëpp bàyyi xel ci loolu te xam ne li ñu boole du koom-koom du alal mais wóllëre moo ñu boole ak ay gëm-gëm ak ay principe te principe bi mooy képp ku nekk ci am réew dafa jaadu ci yow nga am euh, Euh, li ñuy wax participation citoyenneté da ngaa war a euh, participer ci développement réew mi parce que toujours ñu bëri lañuy wax ne état te booy ne état ñu bëri seen xel dem ci président de la république alors que état mooy yow mi taxaw naan état mooy ki nga dendeel mooy keneen ki ci des état mooy ñun ñëpp comme état mooy ñun ñëpp nag état lim fi nekkee mooy lu développé suñu réew kon kenn ku ne ci ñun da cee war a dugal loxoom ñun nag dañoo jàpp ne buñ boolee suñu loxo yëpp dugal ko ci développement Sénégal jàpp nañ ne dina nekk lu am solo loolu moo tax ñu sos association bi. kon nag ñi ngi ñaan aussi agent de l'État yi nga xam ne dañ leen fee structuré ci réew mi président de la République sant leen ay liggéey ci secteur de l'artisanat ak ci yeneen secteur en tout cas li ñu tax a taxaw fii mooy secteur de l'artisanat ñi ngi leen di fàttaliwaat li tax président tànn leen ñu di ko def. parce que bëri na ñun fi invité woon tay jigi te gisuñu leen bokku na ci ministre de l' artisanat bokk na ci directeur de l' artisanat woowoon nañ leen ci ndaje mi gisuñu leen jàpp nañ ne nag xëy na lu ñor moo leen téye xëy na lu mel nii mais bun sañoon lépp loo mën a nekk rek secteur bi ñu la dénk moo moo gën a priorité ci yow kon buñ la ci wooyee da nga cee war a wuyu parce que nag loolu moo tax président tànn leen nekku leen fi pour keneen mais pour artisan yi moo tax ñu nommé un directeur de l'artisanat loolu moo tax aussi ñu nommé ministre de l'artisanat kon nag ñi ngi leen di woowaat ci liggéey bu mel nii ak ci yeneen liggéey yoo xam ne mi ngi ci sun kanam euh, li nga xam ne aussi ay structure de finance la yu fi président de la république teg ni ñu codé seen liggéey yi lañ bëgg ñu décoté ko ba nit ñi xam li ñuy liggéey lu mu ku leen soxla xam fooy jaar ba gis leen mais dañuy jël ay financement di ko jaarale ci ay site inter ci ay passe internet ak ay mbir yoo xam ne ku jàng dëgg-dëgg sax te xamoo mbirum euh, informatique munoo cee inscrire waxuma laa ku jàngut koo xam ne ba nit ñi demee di jàng yow dañ laa jël dugal la nga jàng métier di liggéey ñu côté ko ba nga xam ne yow boo bëggoon financement tey mënoo fexe fexe ba bind lu baax pour ñu jot la kon loolu amul sens pour ñu teg ko fa te ñi tax ñu teg leen fa mënuñu cee jot association bi aussi ñuy fàttali ne am nañu GIE boo xam ne ci la ñuy liggéeyee ci wàllu finance ak ci wàllu li nga xam ne moom mooy euh, formation ci biir association bi ñi ngi woo aussi lu mel ni 3FPT bindoon nañ fa ngir sàkku ay financement ci ñoom ñi ngi leen koy fàttali bu baax parce que euh, comme de ni ko président waxee léegi le nouveau président muy xeex bi ñuy xeex li nga xam ne moom mooy euh, chômage ci réew mi ak immigration clandestin bi am loolu pour ñu xeex ko il faut ñu am ay formation kon nag ñi dénk loolu buñ leen ko bindee aussi dañ ñu ko war a yombal bu fekkee ne ñi ngi xeex pour ñàkk jóge ci réew mi kon loolu aussi ñu ngi koy fàttali bu baax leneen li ci des mooy di sant commission organisation bi Euh, ci njiital Gora ngoom mu nekk président euh, organisation organisation bi lépp jaar na yoon lépp loo xam ne war na ci rek def na ko ak mboolem ñi ko àndal ci commission bi yëpp kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di sant aussi membre association bi ndax lépp leen association bi woo rek wuy si nañ ci gis nañu euh, bis bi tey ni mu taaroo te lépp ñoom la kon dañ leen di encourager aussi ci loolu nag ñu xam ne ki ñu fal président la ci turam mais ñun ñëpp ñoo ànd liggéey moom nag dafa nekk bopp bi rek mais ñun ñëpp ñoo koy jàppale ci liggéey bi lépp lu war membre ci association bi rek ñu ngi la ci woo nga fonk ko te tey gën a jàpp association bi. kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ doon jàllale di jéggalu bu baax ci loo xam ne fàtte nañ ko di sant aussi télé yi nga xam ne ak rajo yi mooy le presse euh, ñi nga xam ne moom mooy Sen TV. ak site internet yi fi teew yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu bu baax seen taxawaay jërë ngeen jëf leeral TV leeral point net ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm jërë ngeen jëf. ñu ngi sant aussi le vice président chambre de métier monsieur Gorgui Diop invité woon nañ ko fi teew na fi teewaay bu rafet yëkkati na ay kàddu yu am solo moom itam dafa bokk ci ñi ñu délégué ngir ñu jàppale secteur de l'artisanat muy chambre des métiers ñoom it ñi ngi dégg nañ ay kàddoom am nañ yaakaar bu baax ci moom moom it ñi ngi koy woo ci jàppale ci biir association bi ndax euh, euh, fii nga xam ne moom mooy chambre de métiers am na commission des clubs foire euh, dirigée par madame Adja Diossi Bey moom aussi ñi ngi koy appelé bu baax ci li nga xam ne ci la ñu nekk muy lépp lu aju ci ay foire ak luy siiwal suñu liggéey ñi ngi ko ci woo di ko jox rendez-vous aussi incha allah dinañ def ay démarché vers moom ngir waxtaane lépp lu ñeel secteur de l'artisanat kon ñi